jëmale ci dialogue national boobee nga xam ne rek dina jëm ci ay réforme ak i modernisation ñeel wàllu justice maanaam ci ab ndëpp la ñu jëm ñoom kilifa yi nag ngir amal ay jooyante ci bile système plateforme bii di jub jubbanti lancé nañu ko nag ngir mën a jot na jàmbat gi nga xam ne mooy bàyyeeku ci askan wi rawatina ñi nga xam ne rek ñoo di sénégalais lambda yi nag te loolee lépp nag daañu ko càmbar talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett président Bassirou Diomaye Faye nag ne li waral ñu daal di taxawal bile plateforme di peeko sa gis-gis ci doxalinu yoon bokk na ci daal di may nag ñii di ay citoyen lambda ñu mën a joxe seen xalaat ci doxalinu réew mi rawatina nag lu jëm ci wàllu justice Vox Populi ne jamono ji nag justice bu xarañ ànd ak leeraange nag mooy li Sénégal bëgg loolaa waral ba gouvernement bi nag daal di taxawal plateforme jubbanti nag jamono ji nag fas yéene naa séq ay jéego ngir justice bu Sénégal mën a méngoo ak jamono njiitu réewum Sénégal di woo askan wi nag ngir ñu daal di caa dugal seen loxo moo xam képp koo xam ne rek am nga ci expérience mbaa nga am ay témoignages yoo ca a joxe wala ay recommandations loolee lépp nag a teg taxaw ci yeesal yooyee ñu bëgg jëm ci wàllu yoon yéenekaay bi xëy di àddu jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek moom la président Diomaye Faye yëkkati nag ne justice bu nekk nag dafa war a méngoo ak doxalin bi nga xam ne rek moom la ko askan wi di xaar plateforme jubbanti boobee nag démb la ñu ko lancé l'observateur xëy tey jii nag daal di jox kàddu ñi nga xam ne rek ay acteur la ñu bokk ci société civile ak i magistrat naka noonu ay huissier ñoom ñooñee nag ña ngay fësal ay solution yoo xam ne rek bu ñu ko tegee mën naa indi ay saafara ci jafe yi nga xam ne rek moom la ñuy tudd ci wàllu yoon na yéenekaay yu bëree bëri nag xëy tey jii daal di àddu itam nag ci leneen mu soxal tukki bi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi di amal jamono ji réew mi quotidien daal di xam ne ni nag moom président Bassirou Diomaye Faye nag ñu ngi koy xaar ci réewu Guinée moom njiitu réewu Sénégal dina fas yéene indi ay yeesal ci xàll wi dox ci diggante Ndakaaru ak Conakry le quotidien yëglekaay ne lu jëm ci wàllu diplomatie bokk na ci li waral nag voyage yooyee nga xam ne rek njiitu réew mi mu ngi koy amal boobaak léegi ginnaaw Praia tey ji fas yéene naa dem moom président Bassirou Diomaye Faye foofee ca Conakry ngir ji naataangoom bi nga xam njiite réew moomee waaye dana amal ñetti voyage yoo xam ne rek dana ko defee ci réew France ci diggante weeru juin jàpp novembre addu jëmalee ci leneen loo xam ne rek ci la leen l'info yëglekaay daal di xëy niki tey jii mu jëm ci coowal Bah Diakhaté ak Imam Ndaw nag teg loxo bi ñu leen teg loxo nag tax na ba opposition bi nag daal di dakkal temps de grâce bi nga xam ne rek moom la ñu mayoon régime bu Bassirou Diomaye Faye jamono jii nag xiiroog ngaayoo fasante sikkim bu metti moom la ñu nemmeeku ci diggante nguur gi ak ñii di waa Bennoo Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne ñoom ñu nekkoon ci ku jégi démb ñoom ñoo jiite réew mi tey nag di teg loxo ay activiste yoo xam ne rek lañ leen di toppee bokk na ci joxe seen xalaat waral ba ñu jàpp ne nag régime bu yees bi dafa nekk di def li nga xam ne rek moom la fi régime bu Macky Sall doon amal nag jamono ji nga xam ne rek ca la jiite woon bopp réew Sénégal lu ni mel nag waral ba cadre yu APR yi nag fas yéene taxaw nag ngir defante ak ñoom yéene kaay bi ne seen ay activiste nag jamono jii ña ngay yàq lu mel ne xamee kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo jiite réew mi te daan démb ne Macky Sall mooy dictature bi ginnaaw bi muy jàpp ay activiste di leen leen tëj ci kaso bi Les Échos yëglekaay feelu ko ne jamono ji kay ab mobilisation bu takku la ñu amal ngir ñu bàyyi Bah Diakhaté ñoom cadre nag ña ngay sàkku itam nag ñu libéré Diomaye ci emprise bu Ousmane Sonko yéenekaay bii di Vox Populi ne jamono ji kay nag ñii di opposition bi doon nelaw nag ñoom ñëpp daal dinañu yeewu nag cadre yu APR yi nag fi mu toll nii ñu dara nguur gi nga xam ne rek moo di nguurug Diomaye fay nag li ñu bëgg jamono jii nag moo ñu doxal démocratie ci réew Sénégal Bah Diakhaté jamono ji nag mook Imam Ndaw ñu ngi ci mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mai ci lañ fas yéene jàkkaarloog àttekat bi le temps moo yëglekaay àddu jëmale ci guerre bi nga xam ne rek am na ci diggante APR ak ñi di waa Pastef yéenekaay bi xëy daal di bind ci xëtam bu njëkk ne la mère des batailles à l'Assemblée ginnaaw teg loxo yu njëkk yoo xam ne rek nguurug Jomaay Fay mi ngi koy amal jamono ji di sànni ay lacrymogènes ñi ngi opposition bi ndax opposition boobee nag yéenekaay bi di laaj ndax daañu wone seen doole ci Assemblée nationale ci jamonoy déclaration politique bi nga xam ne rek moom a amal foofee ca penku ndaw yëglekaay xëyee nag lu jëm ci tas gi ñuy àddu jëmale ñeel assemblée nationale relation bi war a dox ci diggante gouvernement beeg député yi Abbas Fall moom ma ngay joxe ay dëggam ci biir yëglekaay bi ba noppi di dànkaafu jëwriñ ñi nag ma ngay xam ne ni nag assemblée nationale dafa war a jouer rôle am nag ci lépp loo xam ne rek ay responsabilité am la nag naam mën nañoo tas assemblée nationale bi nag waaye am na lu cay ñuul mu dellu nett nag am na ay député yu bokk ci majorité bi nga xam ne rek taxaw nañu temm jamono ji nag ngir gunge ñii di gouvernement bi ci question d'intérêt national naam dinañ nangu nag lu jëm ci wàllu cohabitation bi waaye am na ci loo xam ne rek du ñu nangu benn yoon ñu koy teg ci suñu kaw réew mi people la xëy tey jii dalal kii di Mouhamadou Moustapha Ngom moom moomee nag di ab artiste boo xam ne rek jamono jii ñu ngi ko gën ràññee ci série boobee di Babel séq na waxtaan bu yaatoo yaatoo ak Anna Thiaw jëm ci carrière am yër leen bi la yëglekaay tàggat yaram la ñuy àddu jëmale mondial 2026 listub gaynde yi nga xam ne rek ñoo war a jàkkaarloo ak RD Congo naka noonu Mauritanie jamono ji nag ñu ngi xaar Aline Cissé mu daal di koy fësal yéenekaay